Mm-hmm. tey xam na mooy cuy gis ngeen cuy bi am na koŋ am na jën bu weex am na waas yëpp la am daal waaye mu ndaw tey nag ñu gis ne daal tey nag ñu toogal tey cuy du tiir maam ah, maam comme ni ma ko waxee rek cuy du tiir mhm. moom toogi cosaan la suñ maam yi dañ ko bëggoon torop mhm. ah, te wérgu yaram la tam kon léegi mhm. tooga naa ba yëkka moo des léegi yëkkal si des maam. maa ngi siy yëkkal suma fan de. waaw maa ngi ko yëkkal waa Amérique yi ku ñu ooyee Ibou Thiam. waaw <laughs> ak suma raka Ramatoulaye Cissé. waaw ak suma doom bi maam Penda. ak Tete ak suma benn tante ñu ko ooyee waaw ñoom laa ñoom laa ko yëkkal nag fii. mbokk yi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan gis ngeen tey li nga xam ne moom la leen mu ndaw si lu nekkaa ci nekka ko ngang ci jën na képp koo xam ne yaa seetaan bi mu ndaw ni ma ko waxee rek dinañ nekk ci su ko defee dina leen wax nag naka la ñoo toogee ciwi diw siir rek wax naa leen ne rek foog ñu delluwaat ci biir waañ bi seet ni waañ bi tàngee rek ñu dal di xamba ba mbaax rek gis ngeen ko añ bi nag mu ngi nii tey nag képp kuy seetaan rek yoo leen ko jagleel mu ndaw waaw maam mhm. képp kuy seetaan Euh, jagleel naa la ko mhm. suma mbokk yi mhm. yaama si yaama Sidibe mhm. France maa ngi koy yëkkal lii séeri <laughs> séeri <laughs> suma tante la suma mag la waaw ñoom laa yëkkal lii ni maam waaw jërëjëf ñuy bëggee ñëpp lu am fal solo mun na dañu ni toggal toggal bu dee cuy de dal di am waas am li nga xam ne mooy jën mu weex xam nga ne loolu dina war a interesting te dina war a neex waaye li ko war a neexal yëpp mooy nañoo toggee am ngeen ni ma leen ko dee faral di waxee togga dafa nekk loo xam ne buur bu set nit dafa jàng ni ñoo toggee te am na ñoo xam ne ni ñoo toggee ci wi duutiir ak ñeneen ñi ni ñoo toggee ci wi duutiir dafa utee waaye lum utee utee rek foog ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ci waañ bi fokk ñu jàmmalante dal di jàngalante naka la ñoo toggee na dégga ngeen di ko ne njang waxee woon wax na ne togga bor bu set nit ki dafaa jànga togga na di nga gis ñoo xam ne ni bu ñoo togga ci wi diwtiir ñii dañoo wax ne dinañ ci def lu nekk waaye ci wi diwtiir ci boppam dafa am fànn boo xam ne noonu lañ ko dee toggee ci man ni ma ko xamee ak ni ko toggakat bi toggee ndax kuy togg a cuy dutir boo xasee bi dem marché jënd sa koŋ dal di jën sa suwaas bi te nga dal di jën sa jën bu weex yaa xam sa kujali la yaa xam sa sidda la waaye Lamine Diouf ndegem am na ku nekk ci line bi damaa dal di jël kooku nuyu ko ba pare dal di delluwaat ci cuy dutir bi hello asalaamaaleykum hello asalaamaaleykum. waaleykum salaam. oncle um, yow rek la ñoo déglu. alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw ah, man waa sa broda Adama. aha Adama yow rek la ñoo déglu. Mhm. ah togo bi neex na. true Adama. Mhm. waaw bu nga bu nga ko mhm, waaye Adama yow da ma. yow Adama promise ne ma da ngaa waaye man itamit. waaw man xam naa ne man ngaa déglu ba tey waaye fi ma nekkoon ba tey def foofu laa nekk incha allah fan yii rek di nga gis te dinaa la call na jamono ji ma toll yow ñu dinaa la ñëw surprise la su ko defee yow tam xam naa ne di nga dal di def ba mbaax. waaw loolu mën na ma neem. waaw su soobee yàlla dinañ la fekk sa kër su ko defee yow tam nga wër ñu sa doole loxo. waaw ma ne may may may may teg si yaamu ndaw trop waaye. waaw def def nga yëpp. Ah, bari na seen def moom fu mu jëlee tey moom ah. waaye yow tey yow. macha yow as góor nga. te yow yàlla def na yow xam nga dara ci waañ. yow ah. tey dama bëggoon nga wax ñu yow cuy bi naka nga si gis ak lan nga si jànga. waaw gis naa ko gis naa nu mu toogee cuuritil bi dafa daf ko toogee ndax war a weeraan because dangaa gis am na ñuy toog ak cuuritil mhm. fry daal di fry seen jën ay yooyu noonu waaye moom dafa jël rek sambal jën bi mhm. def yëpp ba mu baax. Mhm. waaw def ay lu mel ni fi dama jàmbur bi daf ko may gu gu gu baawaan. waaw yow daal ci sa jàng jaamu na daal kii bi moom amul morom. yow ko mel ne ni sa jàng kon yow yow loolu nga si jàng. waaw jàng naa si lu bari daal. Mhm. kon Adama ñu la ñu ngi lay bégee bu baax a baax a baax di la ñaanal bu baax yooyu itam yal na sa jàng. ok ok léegi. ndeysaan di nuyu Adama moomu noonu bu baax a baax a gis ngeen li mu wax moom mi nga xam ne moom en tant que góor gis ngeen fi mu wax dafa am solo ndax moom itamit wan nañu ne ñu am na ñuy fray waaye tumbal bi it am na solo lool moom tumbal bi moo ko ci nee waaye man ni ma leen ko dee faral di waxee rek waañ bi lu mu tàng tàng foog ñu àndaa yéen ci biir waañ bi seet li nekk si biir waañ bi indil leen ko waaye tamit di fàttali rek nit ñi ne leen fi mu nekka ni seen coono jeex na ndax fii nga xam ne ni mooy di Gambia Muslim ca Shop bi nga xam ne ni moo nekk fële ne ca Kerba Avenue ni ma leen ko waxee rek boo rombee Green Industry bi rek moom nga am si diseem ak fi fi nga xam ne foofu la Kanilai bakery bi nekk nga dem foofu noonu am fa yàpp bu baax boo xam ne ni ni ma leen ko waxee du pënde du am banta te duñ la jaay benn boutique mbite benn loo xam ne ni yow soo paree da nga dem sànni ko foofu rek la am foofu nga xam ne mooy di Gambia Muslim Butcher Shop bi nekk si Kerba Avenue ma daal di jël kooku noonu ci line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa ngi yow rek ñoo déglu. maa ngi jël nag am yaa sant yàlla. Mhm. concentré ba rek a tax ma xool ak ak neex ma. ndeysaan yow loolu a ma si neex. <laughs> loolu rek a ma si neex sant bi. jërëjëf kontaan naa jërëjëf jërëjëf. waaw ah, babaay. ndeysaan ndeysaan di bëggee sista boobu noonu bu baax a baax a baax di ko wax ne ko rek yéen yéen yéen yéen a tax ñu toog fi ba nañu saay ñun nekk suñ fi toogee dañoo dal di dem ba mu jeex ni ñoo demee dal di dem ba mu jeex jigéen ñi da ngeen ci am wàlla tey dama bëgg a ñu góor ci ni ñoo toogee bu baax a baax